beneen bi ci def moo di Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu wala dañu ni dénkaane fa nga wóolu ak ka nga wóolu Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu keroog fajar ga mu jógee Mbàkke di bisub gaw di chamin asar ba waje ba jek ba ñu tak fas wi ba mu taxaw ci buntu kër bi sëriñ bi ne ci biir di àggale waajtaayam ba mu àggale daf ni ceerno ñëw na ñu ni ko mbàkkee ceerno ñëw na sëriñ bi ni tël génn mais ana Moustapha Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke mu ne ko mi ngi nii mu ana Mouhamadou Fadal mu Cheikh Mouhamadou Fadal mu ne ko mi ngi nii ñëw fii ñu ñëw taxaw ci kanamam jublu penku sëriñ bi jël loxoom bu tedd ba teg ko ci loxol ci boppam sax Mouhamadou Moustapha ñaan ba àggal jël loxoom bu tedd ba teg ko ci loxol sax Mouhamadou Fadal ñaan ba àggal ni yéen ñaar ñii dénk naa leen seen bàyyi Ceerno yii gannaaw yàlla daan ni Ceerno ñett ñii de li ma sant ci ñoom mooy ñeenti yëf mu ne ko mbàkke ban ban mu ne ko bu ñuy jël bind bu ñu tëdd fi suuf bu ñu soqee na nga wat te bu ñu gëjee mus ndawal ñeenti yii la maam la Seex Ahmad Bamba dénk maam Thierno ci sëñ Fallu ak Seex Muhammadul Mustafa bu ñuy jël bind bu ñuy tëdd fi suuf bu ñu sëqee na nga wat te bu ñu ko jëb mus dawal mu ne ko Mbàkke ni nga ma ko dénkee noonu laa koy defe ba kere ngay ñibbisi ba kere ngay ñibbisi kon kooku mu ko waaye xamal na ni Cheikh Ahmad Bamba day ñibbi sëriñ bi ni ñoo ket bëgg a war ca fas bi am fàtte ca kër ga mu wëlbati ko war sunu borom ni ko ah ndax dangaa xamul ni sa jaayante àgg na ci sa delluwaat ci kër gi daa araam sa jaayanteeg man ak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mayetu la nga génn kër gi di serigne sering dua tu da dah di wal fatam wax mam cer na ñett yef yo xay benn bu ci ne munuñu koo bàyyee ku ko munta yor bi njëkk moy tariixa bi mu sos ci ñeen fukki atam ñaareel bi mooy njabootu boppam gii mu fi bay ñetteel bi mooy teel bi yi ko joxoon seen bopp te gisatuñu naratuñoo gis sëñ bi mu ni ko Ceerno mu ni ko Mbàkke mu ni ko njaboot gaango ñi ma toppan te ma nar a dem bàyyi leen fi ñu ngoog tariixa di mu ngoog moo tax maam Thierno moo njëkk nekk xalifa Serigne Touba bi Serigne Touba yi dem ci géej gi moom la fi bàyyi comme xalifa mu wuutu ko ci xalif xilaafa gi wuutu ko ci tarixa bi wuutu ko ci njox yàlla njox seen bopp yàlla tamit dëgg ci ñoom ñett yooyu yëpp maam Thierno moo ko yoraloon Serigne Touba yor njaboot gi yor taalibe yi. yor tarixa bi di jàmbaar nag yoo xam ni musta daw musta yokkat musta ragal musta dellu gannaaw ndax ku toll ni sëñ Tuubaa daraja bi ko yàlla may ay noonam di ko jëlsi ko la wóotu ko ci ay noonam wuutu ko ci ay bokkam wuutu ko ci ay njabootam wuutu ko ci ak taalibeem yor lépp lool ku amul may yàlla mënoo lool ndax tarixa ki am ndigal ci samp ko am ndigal ci woote am ndigal ci dégle am ndigal ci jëflu am ndigal ci laaj nit ñi seeni alal ñu war ko koo jox kooku daraja bi mu représenté ci kaw suuf amul sañ-sañu daw am noon amul sañ-sañu wuti ab soppe moo tax Sëñ Tuubaa bind ci am ni lastu axaafu durra xalqin baadama fawaltu amri ila rabbi sama man Ahmadou Mbacke de ginnaaw bu jébbalee sama bopp yàlla ragalatuma noon bu may fexeel yaakaaruma yëpp soppe bu may dimbali ci lii ma nekk sama digganteeg sama borom soppe bu yar sa ndimbal bu la neexee téye noonu bu yar sa pexe it bu la neexee ñëwal man sama digganteeg sama borom bële bële ci kenn loolu bi Sëñ Tuubaa dem ci géej gi. maam Thierno ko bàyyi moo njëkk a nekk xalifa Serigne Touba njaboot bi gannaaw te bokkul ak jaamu yàlla yi boppam li muy def gàlloo maam Thierno dund na ak Serigne ci ak ndawam ba ci magam ba ne fi Serigne bàyyi ko. mu ji borooma mu des gannaaru fekk na Sëriñ Tuubaa li mu war a séddale lépp séddale na ko li mu war a joxe lépp joxe na ko li mu war a wax lépp wax na ko li mu war a def lépp def na moo tax sëñ Moussa Ka radiyallahu taala anhu mi nga xam ni yal nañu ko yàlla fayal moom du fekkoon ni sëñ Touba daa taxaw fi suuf moo ko yëkkati ba mu doon ba ba ñépp di ko séen mu téye ko ci loxoom loolu jël sëñ Moussa àgg na foofu bëri na ko xam sëñ Touba moo la ko xamal bëri na ko bëgg sëñ Touba moo la ko tax a bëgg bëri na ko yaakaar sëñ Touba moo la ko tax a yaakaar sëñ Moussa Ka dafa wax ni duniya bu doon këru saxoo di yaare xëyrul wara waa Màkka duñ ko jaare waaye na génne joojawaay fa tay ba génne Serigne Touba fa njurbel bis ba du bàyyi sunu maam Cerno Ibrahimu kële di xaadim kële Maxduum maam Cerno moo doon xaadimul xadim moo doon liggéeykatu Serigne Touba Serigne Touba di xaadimul rasul moo tax mu ni ko kële di xaadimu kële maxdum maam Cerno mooy xaadim ci Serigne Touba Serigne Touba mooy maxdum mi nga xam ne moom la maam Birahim radiyallahu taala am di ci moom la tubaab yi xamee ni Serigne Touba du man ci moom dara ndax bi Serigne bi demee ku ci géej gi maam Thierno moo doxoon diggam ak tubaab yi bépp leetar bu tubaab yi mus a bind mu jëm ci Serigne Touba leetar boobu bu ko sëriñ bi jotee. tontu la muy jox tubaab yi maam Thierno yóbbu te booba janoo ko tubaab mu wax nga tontu ñi ko ñimee bariwul ñi ko manit bariwul waaye bépp leetar bu sëriñ Musa jot mu bàyyi ko ndar ñëw ci moom tontu war ca tontu loolu bu ko sëriñ Tuubaa bindee ba noppi ci loxol maam Thierno la koy teg ko dama yóbbul mu ko ndax su bi ni ko muuru Mbàkke day fereeram bi ñëw na piti fereeram bi ñëw na mu ne lu lu lu ko tax ñu ah, ne na moom du ko wax te jënoowul ak yow ndax yow la ñu ko wax loo di ko daxa a jóg du ko wax kenn te jënoowul ak yow gouverneur bi day wax ni na ñëpp génn ñëpp génn biram gouverneur mosu ko recevoir te fekk am na ku toog su ko recevoir ba noppi day woo du sekk bun muxtaar ni ko ndaw lii nga xam ni frère Ahmad Bamba bii demal traduire ma leetar di ko magam ji jox andil ma du sekk jël leetar bi li mu ci wax wax ci arab lépp mu traduire ko ba mu yegg mu di ko ko gouverneur gouverneur jàng ko bàggal ni ko man ngaa ñibbi